Abdoulaye ñoo ko yar xam nag ci moom bëgg ay mbokkam bëgg ay waajuram respecté leen respecté ñi mu dëkkal Olof Njaay nag nee na du toujours muy neex te mbay Gueye mi mu tibbee lii yaakaar naa ne ndam lu nekk am na ko ci làmb moo jëkk andi million ci làmb yàlla di def ndeyam rek mooy baayam nu jur ko jur bu rafet mu yorit jikko bu rafet bu neex ñëpp yaatu waaw amul ak benn doomu aadama xaar ma yàlla mbër nag loola làmb la rek waaye yaakaar naa ne defatam boobu yàlla na fi géej boo amatee combat yàlla na ko ci yàlla may ndam lu kawe njortam day xale bu baax nag man maag yaayam bokk ndey ak baay looloo tax ma sànni ci lii ma ci sànn di ko ñaanal nag fan fanu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal yàlla na ko caat seexlu ci barka alxuraanu karim ci barka lislaam barka Makka ak Medina loolu rek laa amoon lu ma ci sànni samay kàddu jërëjëf waaw mënoo ci ñàkk wax ndax man may taawu ndey may seen mag man yaay laaj ci ñoom maam laa ci ñoom waaw ndax maam ji boo ko déggee taawum ndey mooy ndey te seen maam dafa teela làqu ma nga des ca màkkatul mu karam déedéet léejul woon ci xalem ku timit la woon man nii mu xëyee bëri sax daf noo jaaxal ndax maam Mor dafa nekkoon nit ku waaw koo xam dafa ragal nit bari kes sa waaw waaye xam nga rek Mbaye Gueye mi daan tëgg fi ay mbappat ak ak Papa Gueye rakam bi nekk itali ñoom ñoo dugal xale yëpp ci làmb man amoon naa sama caat bu góor boo xam ne dafa nu bëgg a dugg ci làmb ji waaye dama ko ne déedéet fe ndekete booba rakam a ngi koy suufu ca suuf bëgg-bëgg nag dafa for ci borom bëgg-bëgg moo for ci doomu aadama bi dama koy ñaanal rek fan fanu gudd ànd ak wér di ko ñaanal mujj gu rafet di ko ñaanal yàlla suñu borom bi na tëj xar ga fuufay borom làmb yalla na ko cat seexlu yàlla na mucc ni mbaam mucce ci xaram tabaski ci barka lislaam barka alxuraan jërëjëf asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet ñu leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di ñaan way daw lii suñu borom leen te xaare leen te àjjana firdawsi ñu feebar tëdd si hôpital si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina te seen vidéo seet boo njaay dañ ñëw fii tëli maam jaar seeti ko muy kan muy doomu Fass maam Mor nuyu naa la waa onze billahi mina seytaan rajim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonte bi ñooy sant suñu ñaari waajur gërëm waa Fass Mbao yëpp xam nga waa Mandala Boun yaakaar diisoo sanc bi seet loxo bëggee ñëpp fay naa ñu la waa SVT Média bi nga bëree ba léegi doomu Fass gis ñu la foo nekkoon waaw maa ngi sama fi ma waroon nekk rek fii laa doon nekk su ma amee combat su ma amul combat sama palaasu mag sama salon mag fii waaw ma koy gërëm bu baax di ko ta ñaanal jàmm ak sutura bu bari ñaanal sama yaay jàmm ñaanal ñi nekk si kaso yi xam nga yàlla génnee leen daal parce que Serigne Bamba waa tamit maa leen ñaanal xam benn booy mooy fa chambre 10 jaruma turu turam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla génnee si natt bi di béggee sama tëggkat bi hélas xam ne moom mooy man man moom parce que Serigne Bamba bu naawee rek ma naaw waaw dafa maa bëgg waaw day yëkkati xaalisam di ma jàppale di yëkkati alalam di ma jàppale di ma booleeg ay géeram ñu may jàppale di ko nuyu bu baax di nuyu sama papa bu baax père Modou Fall Ndiaye Brescia di nuyu Assoumbène ñoo jàpp nañ si combat bi ak Assane Fall waaw. waaw sa diggante ak Cheikh Super Jamono bari si yéen ñaar ñëpp avant combat bi ba si jour lamb ji lépp ngeen di coow lan la dafa am fu ngeen a jaar wala lan la. non coow ñu sax man loolu jàppee ma ko coow xam nga xëy na suñu yaram yi ñoo tàngoon rek. mënatuñ contrôler suñu bopp loolu la demee mais man laam moom maa waaw dañ koy jaay ba mu jar man jàppee bu loolu jàppee ma ko dara xale la man xale laa dañoo ñëwoon pour ut si rek xam ñëw naa nag def li ma war def lépp ànd ak samay mbokk Ousseynou ak Assane Pape Gueye laa xam nga Ahmed Maas Ndiaga ñoo ñëpp ak darma jàppale ma ma ñëw bëre si fulla ak fayda yàlla may ko ndam maa ngi koy ñaanal ndam li yàlla na ko jig xam nga. signature bi esat ba nga dem ba bu mujj bi waaye tax may wax nañ dem sax si géew gi boo bëggee léegi-léegi maam maam lan la woon a déggoo ma la wax xanaa suñu yaram moo tàngoon mënatuñ contrôler suñu bopp Cheikh ndaanaan la champion la man tamit ndaanaan la sampiyon la bëri nañ ko si fair play bilaay walaay jeex na jeex na damay xooli leneen moom mu dem xooli leneen làmb jeexagul mu ngi suñ kanam yàlla nañu yàlla may wér rek làmb jeexagul mu ngi seen kanam yaa diggante làmb moo jeexagul quoi maanaam defet boobu noonu dañ koy sante yàlla bu wér ndax yàgg nañ bëre di daan ay doomu jàmbur kon tey buñ ñu daanoo nii dañ koy sante yàlla daal ndax suñu géemu gëj na laal suuf tamit dañuy defaruwaat rek làmb jeexagul. bi ngay jël Cheikh moo nekkoon sa ñaata combat. moo nekkoon sama dixième combat dix. ma def sept victoire sept. waaw am si trois défaites. nga jël Cheikh nag coow li bari Mamour war na jël waru koo jël. du yoonu làmbam ci dynamique bu mu toog waru koo jël yëpp nga dégg ko. waaw loolu lépp rek ñu jël gas ba mu xóot rek ñu suul xam ne làmb suñu kanam la nekk te ñun ay xale lañ te bëgg nañ làmb maa ngi ñaanal sam papa Mbaye Guèye yàlla na suuf oyof si kawam ndax combat moom laa ko doon bëreel xëy na nag jaam pexem yàlla ak dogalam. papa Mbaye moom laa ko doon bëreel. combat bi xam nga noonu la mënoon demee daal def nañ lu war a def lépp entraîné def nañ ci xaalis misik def nañ si lépp noonu la mënoon demee barke sëriñ Bamba dañuy xaaraat leneen rek ñu parewaat. si géew gi nag yéen ñaar yaa ak Cheikh Mamour à tout moment mi ngi demee fukk jeunesse. Cheikh arbitre dana prix ma dox si kawam dóor ko daw jàpp ko mu laal sama tàng mu déclenché ko mbot gaay daw dugg si biir géew bi. ñu ngi dugg si géew si géew bi ñoom Abdou Ndiassé ñoo dugg si géew bi. ndax lan xam. ma téye ngemb seex at bi ne ma bàyyi ko ma ne ko du ma ko bàyyi seex dafa ne ma baay ma instant boobu noonu man boobu laa gëj jàpp mu seex te action boobu noonu mënoon a demee neneen daal. at bi dafa sifflé nga dox si kawam. ma dox si kawam dóor ko góos waaw. seex laa ko dóor daw jàpp ko. ñoom la rek. seex yàlla na ko yàlla defal jàmm. dinañ waxtaan si loolu. Abou Ndiassé arbitre xanaa laajul arbitre bi gisul bi sama làmb lañ yàq dañ ko salteel lu leer laa lay wax xam nga duñ duñ la daan ba pare ngay toog fii di wax leneen da ngay wax li am loolu ñëpp teg nañ seen bët man mosuma def loolu mbër mbër jekku mbër ma daw dugg si biir géew seex yàlla na ko yàlla defal jàmm combat bi xam nga mu nekk combat bu ko jik lii mënu woon ñàkk si man il faut làmb ji il ma ñàkk ko waaw ndax am na yu garaaw yu ma si gis te signes yooyu baaxul. gis loo xam ne baaxul. waaw. non garaawul loolu bàyyi ma dund ko rek daf ko dooley biir xama làmb moo baaxoo xama nga entraînement contact say mbokk wër la man loolu lépp defal nañ ma ko maa bëre maa daanu. kon ma déggee sax dafa am lu la yàqal loo xam te nangoo ko wax. kenn yàqalu ma dama ne ay signes yu ma gis si biir làmb ji te loolu baaxul. waaw. si si yow la wala si ñi ngay àndal wala si ñan. non non du si man de. man pare naa man su ma sañoon ndam laa indil waa Fass Mbao man couleur Fass Mbao laay représenté. Euh, représenté wu moom beneen couleur dëkk bu dul Fass Mbao moom la am waa Fass Mbao tamit man lañ am mhm. nañ ma jàppale nañ ñëw jàpp si mbooloo mooy doole daal bilaay waaw. combat bi déggoo lu ma la wax ñu doon bëre grand combat bi sax li ma def si làmb ji defuñu ko si. xaalis entraînement pare fépp ay ñaan man daa mel ni man boobu moo nekkoon sama premier combat ndax ki ma ko doon bëreel moo tax dama jóge fii dem dëkku jàmbur dem gaale Kara Dollé lalu foofu combat bi yéeg naa sax avion dagal nañ ma si billet ma voyage. combat ak dem ba aéroport vol bi tardé ñu war a xëy demaat te dañoo fay xaalis combat bi dañu see def lu bari ñëpp jàppale ma ñëpp waa Brescia yi ñëw jàpp si tamit ama nga asumbeen bu baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm moo sëy Maodo ba France dañ maa jàppale ay Abdou Sène Ndiaga 221 ay ñànku ay Vémas Grand Zal Ndir wóor na Sëriñ Bamba dama see am jàppale jàppale ba ma rus moo tax bi ma daanoo ëpp jàppale sa combat pour sama gaale. combat bi nga ëpp jàppale sa combat pour. ma bëre yëpp si àdduna bi laa ëpp yëpp. si laa ëpp entraînement. bu baax macha allah. moo tax làmb day wor quoi. waaw man xam na rek. xale laa te làmb mu suñ kanam. damay dem yokkaat samay entraînement defaruwaat ndax làmb am naa si cër. samay moroom. woo na ma téléphone. Cheikh woo na ma téléphone. Ah. na ma ay photos am. déggante ngeen. ñu bëree. ba si guddi gi hôpital la fanaan dañoo ñëw bët bi ñett ñëw ñëw foto eh. bi mu ngi sama kóol. nee na na nee na ba bëset te Cheikh bi ñu jàppante première bi ñee daw dugg si biir géew bi. bi ñu jàppante waatee siggiwul ba nu mooy daanee ndax bu siggi woon bu ko gisee du bëre ndax bët bi dafa toj. deret bi bari deret sama tànk la doon siit. ndaanaan la champion la. billaahi gars yi nañ ko jox cër si làmb bu baax. gars jox ko lan. gars nañ ko jox cër si làmb bu baax. waaw. ndaanaan la léegi nag gars yi lu ñu wax. waaw ñoo ngi may woo di ma proposer ay grand combat mais samay mbokk ñoo ñoo ne ma ma xaar ba ma pare ma dem bëre. nga pare ma daal. daa lu may daa am lu may defaraat. ma mu dellu avance. kan. waaw woo ma ne ma yàgg Thiandoum 2 grand ma dem waxtaan ak samay mbokk ñoom d'accord ñu man su ma sañoon chaque dimanche damay bëree ndax man maa opté nekk mbër te kuy bëre nag mooy daanu defet bi yàqalu ma dara tey laa gën a mën a yokk samay entrement li ma doon def tey laa ko gën a mën a yokk li ma doon def du ma si bàyyi dara. say mbokk boo leen laajee woon nga ne pare bu jël avance. man ma xam ne dañuy woo mbër ne ko combat muy dem YouTube di xool adversaire bi wala muy woote téléphone pour ñu indi mu xool boo xam neexoon nañ loolu mosuma dal. seex mi bi may bëreeg moom dañ ma woo si jour bi laa d'accord problème kase lañ amoon après seex moo dégg naa moo fay xaalis pour ñu bëre. booy ñoo yaakaar di bëreeg man ndax man sama combat dama koy jaay. mais problème kase moom mu dagg si kaseem ñëw. mooy loolu. boo yëpp a bëgg a bëreeg man. mais man maa ngi si làmb ji rek. damay taxaw defarwaat bu baax ñëwaat. ak doole incha allah. non jàpp naa pareegu ma ndax dañ maa daan. avance yi a ñëw nii léegi nooy def. avance yi ñëw dañuy xaar man instant damay defaru incha allah ñëwaat si làmb ji ak doole. boo ñëwaatee booy boo defaroo boo ñëwaat. yéen adversaire ñoo nekk sa xel yoo xam ne bu avance ñëw rek pare pour pare. non man aw ma problème adversaire di nuyu sam papa Père Cissé borom marché Kermer moo ngi nii di romb daf may jàppale. di ko jaale suñu maam jooju xam nga daf ñoo bëggoon lool ak Serigne Bamba. làmb jeexagul ñun ay xale lañ dañ siy bay suñu waar. bilaahi waaye nag fi ñu toll nii comme indi nañu avance nga ne paree ko xanaa boo paree nag di nga am ñoo xam ne si nga si la ñëw. combat bi le 29 décembre la woon te man du ma jógee si combat matul sax weer ñu bëgg ma joxaat kombaa combat dañ koy waajal ay 2 mois 3 mois. man boo man xaw ma tuma sax promoteur bi ngaa yi lay woo rek ménagère bi sax mun na la woo mooy loolu làmb moom jeexagul ñun dañ siy bay ñu waar liñ ci moom moom dinañ ko jël incha allahu rabbi te comme defet bi dafa maa gën a dugal si biir laam. defet bi tuddul defet defarul la tudd. defarul la tudd lii dama si dugaat bu baax te bu may ñëwaat si biir xam ban esaat laay bëree di ngeen gis leneen man xale laa sama yaram soxorul damay entraînement rek am doole. ñu xaar lu am jom laay indaale ànd ak sama doomu ndey El waaw sama tëggkat sama xarit El Hadj dafa may boole ku nekk barki Serigne ma ñu may jàppale waaw aw ma fayam moog Assane Fall. barki sëriñ Bamba. mais Mamour dafa laaj tuuti rek. en tant mbër. Mamour supporter yi yàq siis yi esat en tant mbër lan nga si loolu moom kenn rafetlu ko. même bu nekkoon man maay bëre samay supporter yàq siis yi man du ma ko rafetlu du ma neex mais tension làmb yéen xam ngeen lan la da ngay bëgg yow ki nga àndal chaque jour moom mu kase mooy am ndam te di gars yi jël xaalis bu bari di ko def si làmb mbër bi ñi koy ñi muy àndal ñoo koy gën a bëgg làmb ji man su ma sañoon affaire yi ay xeer lañ koy def ay toogukaay xeer. comme ni ñu waaw nga xamante ne loo mer-mer boo kajee xeer yi sa tànk mooy metti mais ay kaw su nga ñëw defar ko ay mbër tamit rafetoon na trop nag mais loolu du pour mbër ko kaw su mbër dañ nga koy defal yëfu mbër mbër dañ ne dof la xam nga da koy defal yëfu dof tegal ko ay xeer bu ñëwee toog bu mën mënee jël carton dag ko toog si wala mu wut éponge toog mais mbër doo ko defal ay kaws pourtant siège yi mënoon nañu ko def foofu tamit mu rafet ku ñëw sa mbër bu ñu ko daanee nga wàcc ndànk dem ñibbi. waaw mais danga nga mës a gis yow mbër bu ñu daan mu yëg di damu siège yi. mbëri dañuy bëri daanu akolaadante fair play xam ne làmb bëri ak daan ak daanu ñoo ànd. non si supporters yi ñoo war a xoolaat xam seen toogaay bu baax si biir làmb làmb xam nga facteur de développement la exemple bi ñi nekk si làmb yëpp di si tekki bu làmb amul woon wala bu ñu tëjee làmb lan la ñuy def. waaw kon nañu gars yi jàppale daal ñuy àndal bu ñu yaakal loolu waxu Mamor dégg ngeen lim ci wax mais dégg nga sànq suñu yaay booy bi fi jaar. waaw kooku sama magu yaay la moom tànta xam di ko ñaanal tamit xam nga yàlla may ko wér rek gudd fan ku baax la daf ñuy ñaanal dañuy jàppale dañuy yóbbu fépp xam nga li mu wax nii moom moo ko xam quoi man xaw ma woon sax loolu parce Sëriñ Bamba dañoo nekk xale nekk si benn dëkk boo xam ne dëkku làmb la fii dëkku làmb la bu ñu nee mbéy gi Tigre Fass rek jeexal nay wax ñu new suñ papa xam nga Pape ay père Amin Ba dëkk fi per Ibrahima Mbaye dëkk fi xam nga fii dëkku làmb la fii warul rafle mbër waaw ñun mooy loolu dañuy nekk mbër incha allahu rabi nekkaguñ mbër mais dañuy nekk mbër. ne mbër. non non. man li mbër am yëpp man damaa manqué lu bari man amu ma écurie boo xamante ne ni Fass Mbao fa fi moo Mamadou di contacté te bëri naa cinq combats te amul écurie fii. amul écurie cinq combats yi mu bëri entraîné wu ma ko fii nii. Malika laa koy entraîné ko ñu Kara Doole. Kara Doole ñëw ñoom Unca ñoom Boy Sey De ñoom saa bokkal ñëw jàppale ma mais fii nii amul écurie fii cinq heures bu jotee munoo dajale ñeenti mbër ndax amuñu fu ñu entraînement wee. école yi. école dañu ko tere école dañu ko tere yàgg na mais magu dëkk bi tamit dañoo war a mën a génn ñëw jàppale ñu magu dëkk bi xam dañoo war a mën a génn ñëw jàppale ñu ndax gox boo dem xam dañ leen jàppale daal bañ yegg fi ñu yegg te ñun ku ñu jàppale dañuy dem ndax ay daaro Bakary ñoo ngi fi ay champion lañ ay Momo ñoo ngi fi ay mbay la de Guiers xam nga ay Mamadou Mbaye Petit Tigre ay ndaanaan ñoo fi nekk. ay Père Mbaye barke Serigne Bamba nañu gars yi ñëw jàppale ay Boy Maar. Fass Mbao ak ni mu amul benn école boo xam ne war ngeen si mën a entraîner. man bëri naa cinq combats Fass Mbao fii amul écurie bu ma contacté amul écurie bu ma dem entraînement amul écurie Fass Mbao ma daan kaat yi benn bi te amoo écurie léegi boo amee écurie nag. loolu ñun kenn jàppale wuñu ko waaw message tamit lancé ko. façon message bu nekk def nañ ko si. barki yàlla SV SVT média bi wax naa ko fi ñaari yoon bi mooy ñaari yoon. toog nañ fii nii moo ko ma togaat fii moo ko nañu gars yi jàppale ko waa barki yàlla bu ñu neexoon ñu dem nekk si leneen mais làmb lañ bëgg gis yeneen gox yi xam nga làmb mu ngi yóbbu seen tur fu su kawe ñun Fass Mbaw duñ ko bëgg a yóbbu foofu te mën nañ ko Fass Mbaw benn autorité la benn autorité la am benn mu nekkoon père Mbaye Gueye Tigre de Fass moom rek ngay wax àdduna yëpp xam ko Fass Mbaw amul keneen koo fiy wax turam ñëpp xam ko amul te ko gaañu na na gaa yi ñëw ñoom Pape Gueye ñoom Khoudou Sow xam nga ñoom madame Margot xam nga gaa yooyu noonu ñoo fi nekk ñoo ñëw jàpp si ñu tàllal leen suñuy loxo ñu may ñu ay camion suuf sax sotti ko si terrain Fass bi mbër yi mën fa di entraînement we ndax dëkk boo dem am na mbër te mbër tamit kenn du ko xeeb quoi ëllëg kenn xamul kuy xam nga waaw kuy réussir te man sama réussir jàpp naa ne réussir Fass Mbao yëpp la li ko wër keneen ak keneen noonu Petit Tigre noonu ba Fit xam ay ñoom Ama Ndaw ay ñoom Lamine mbaay ñoo ñëpp ñoo ngi si di si dox di si wax waa mais ay ñoom Moustapha Gueye ñoo ñu war a ñëw jàppale. waaw ndax magam moo yoroon lii te génn àdduna comprendre nga te moom dañ ko formé moom daf ñu war a ñëw formé moom daa war di formé ay xale moom dañ ko formé ba mu yegg fi mu yegg. non dafa war a former ay di former ay mbër moom warul taxaw si tele tax di wax man d'accord ma loolu yow bu ñu la formé ba nga nekk jour nga jaar si ay école football yu mag ñu formé la ba nga dem ba football ba def li ngay def yëpp ba sa carrière jeex da ngaa war di former ay xale ñuy football Moussa Gueye dafa war a ñëw former ñu wala mu ibbi école ñu ñu dem fa nu ñu génn fii di dem beneen écurie di wuyoo beneen tur écurie mais fas mbaaw moo ñu ñor dañu war a mën a ñëw jàppale ñun bu ñu amee jàppale bilaay ragaluñ dara da ngaa bëgg moom mu ñëwaat fii report li fi Père Mbaye bàyyi mu continué ko. Moustapha bu ñëwoon si école wax ak directeur bi jaar fu mu war a jaar deux jours ñu entraîné te ñun bu ñëwoon bu doon ñëw lundi ak mercredi wala mu ñëw lundi ak vendredi sax bëgg nañ. Mamadou nga naan doo jàkkaarloo mu waxu ko mu dégg. non li may wax nii kay fii ma koy waxee nii am ah, monde bi dinañ ko yëg man waxuma ak sax keneen moom laay waxal direct suñ papa Moustapha Gueye ñëwal nga jàppale ñu. ñun ku ñu jàppale dañuy dem làmb ji am nañ si cër te Fass Mbao tur école de lutte Mbaye warul naax saay dañ leen war a dégg fu sori ndax ki ka ki ka ki ka ki bi nekkatu fi écurie bi bu deewee rek kon kooku ay mbokam seetaan nañ quoi waa Fass Mbao yëpp nag nañ ñëw jàpp si école de lutte les Tigres bi ñun ay mbër lañ dañuy bëre dañuy bëre cinq combats daanu benn te amoo écurie boo amee écurie kon ñaata combat nga war a bëre aw ma problème adversaire man maay man maay waat defaraat sama bop bu baax ñëw bëre. am na nu muy demee sax si lutte simple bi laay ñëw bëre. wàcc si ndax booy bëre simple bi yëpp tamit am na fu ma jaar ak ñoom. kon kon mën na loolu lépp mën na nekk. le deux am na. déggoo lu ma la lépp mën na nekk. ñiy bëre si simple bi di ko toj am na fu ma jaar ak ñoom. comme ñan. ñoo koy toj. naanaan simplement xam nga leen. musuma musu musuma dem si tournoi te finaaluma. kon kon ñu xaar la deux si dix millions yi. loolu yëpp mën na nekk mbër dégg naa boo daanoo da nga war a defar jiwaat. waat te booy defarut da ngay dem mbapati ji. waaw balaa maa sant gërëm sama tëggkat bi daa am message bu mu bëgg a génnee moom tamit hélas. waa doo lay ziar bu wér di leen nuyu bu baax di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay. di kontaan bu baax nag si émission bi ngeen def tey ñëw waaw vraiment damay avant tout damay remercier Mamor ndax fekkewu moon bi ngeen def émission bi mais daf ma woon na ma ñëwal ñu def émission kon maa ngi siy kontaan di wax tamit di lancer benn message mooy que euh, Fass Mbao ñu génn ñu ñëpp jàppale ñun mbër yi ñu am nañu jàppale suñu mbër yi nga xamante ne ñun ñoom nañu yàlla dénk ñu leen jàppale bu Maguette Maar amee combat booy Maar bu amee combat na Fass Mbao gépp jënd jàppale ko euh, Mamor loolu keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu bu ñu ko defee ñun dañ mën a am dara ndax ñun ñun nekkal xam na ni làmb am nañ si cër bu baax a baax a baax a baax nan ñëpp jënd ñu xàccandoo dóorandoo defandoo lépp Sénégal jëm kanam Fass Mbao ay champion yu bari ñu ngi fi champion yu bari ñu ngi biir Fass Mbao gi tëdd kon nag nag autorité yi jënd jàppale leen waa Fass ñëpp jënd jàppale leen ñu am ay mbër yu bëri ay grand ko di remercier nag Fass Mbao gépp di gërëm sama champion bii xam ni keroog ba mu amee défaite dama ne ko lii moo lay def mbër te xam naa ni làmb moom am na si cër ndax li ëpp solo si làmb am na ko mooy ko ragalul te mën na bis te mën na bëree li si des nag dañuy ñaan yàlla rek fépp fu mu fépp lépp lu nawleem di lekk si làmb rek mu lekk lu lu ko ëpp te xam naa ne làmb am na si cër te incha allah yàlla na ko def. diggante ak kii nag man sama diggante ak moom ay man moom moom géwal la moom deret mu maanaam deret moo jiitu foofu sax parce que Mamour suma deret la magam Amed Lo suma papa suma kilifala suma lépp la muy magam di sama xarit nag man tey bu ma demee ba toll fii sax si aar Amed Lo bokk génne si bu bari c'est parce que dafa yàgg yi sonn si man di yàgg di wax dafa lii dafa lii yàggut a taay si man di ma jàppale di ma conseiller barke sëriñ Touba mu nekk sama xarit nekk sama complice kon dama koy ñaanal yàlla kii du ma géwalam kii deret lañ ay mbokk lañ man a moom loolu moo ma bàyyi ci moom. wax nga tàggoowale. waaw El kii dafa leer kii sama nit la da moom dafa may wax dëgg quoi xam nga lu mu métti métti dëgg la may wax. waaw damay bëre toog ne du ma génn sax daanu sax mu ñëw wax ma dëgg ma jub mu ànd ak man soulagé ma xam nga kii mënu ma ko fay daal barke Sëriñ Bamba ba pare moom mooy génnee xaalisam di ko def si man aw ma fayam barke yàlla yaayam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yaayam daf ma doon wax si làmb xam nga di ma jox may reer billaahi waaw bu loolu weesoo maa ngi sant sam benn frère boo xamante ne nii siin la nekk Tafaloo moom combat bi da see tamit billaahi deret moo ko yëkkati moom tamit jàppale na ma doom bàjjen kombay la dafa loo baa ngi koy bégee bu baax a baax Baye dëgg ngoog ama di bégee waa Brescia yëpp sama papa père Modou Fall Ndiaye borom Brescia gis nañ jàppale si combat bi xam di nuyu asumbeen bu baax di nuyu naar naar borom di nuyu Mosey xam nga ak Maodo Ba maa leen sant bu baax di leen gërëm. di nuyu Abdou seen bu baax a baax njaga 221 xam nga di nuyu suma famille samay mag ñoom sooda ami kolle aji xam nga jeelaani di nuyu Ousseynou ak Assane bu baax kontaan naa si ñoom ñooñ fu ma mën di yegg rek si làmb ñooñu ñoom fa yóbbu di nuy Ousou Bane bu baax Pape Gueye monsieur le maire xam nga futur maire jàmm gan si kam moom loxoom moo ngi si morgue bi loxoom moo ngi si tali bi loxoom moo ngi si jàkka yeek jumaa yeeg courant beek ndox beeg lépp dëj tudd Pape Gueye yàlla na ko yàlla jox mairie jàmm gën Sicap man maa Mor doom Faas man maa la ñaanal lool sa rakk sa xarit Pape li nga séntu yëpp si maire bi yàlla na la ko suñu borom jox ndax yow boo nekkee maire jàmm gën Sicap Mbao man mën naa ne man maire laa mooy ki may toogal seize su may bëre sama cinq combats yëpp moom moo toog seize dafay xëccoo maire jàmm gën Sicap Mbao dafa may jàppale quoi xam di di nuyu Mo bu baax borom Angleterre Mo Souley jàppale na ma yére seddaay am manqué rafletu ma ko ak ay dàll Mo Souley Mo Souley billaahi maa koy sant bu baax di ko gërëm ak Khoudou Sow monument Fass Mbao kooku mooy monument Fass Mbao Khoudou Sow maa ngi koy sant grand zal ndiir borom Pàkk Lambaay maa ngi koy sant ak ñaari soxnaam yëpp xam nga di nuyu borom saal bi borom macha allah fitness amat dafa may jàppale kot su xam nga di nuyu ñoom rëm xam champion yi nekk fii ñoom Baba Jaxal ñoom Mbay la daguère booy Sadio ñoom Petit Ñaa sama combat bi jàpp nañ si Kara Doole Unca booy say deux xam nga combat bi jàppale nañ ma si daal xam nga rek da juum xam nga sama papa Pape Gueye papa yi Petit Tigre moom da woo di la conseiller xam di la wax bàyyil lii bul def lii del jaar fii xam nga Assane Fall borom Australie ak Aba amuñ seen fay daal barke Serigne Bamba di nuyu sam papa Modou Khoule xam nga di nuyu Petit Khoule Doudou Khoule xam nga Mamour Khoule Ousseynou Khoule ñoom ñoo may terrain daal ne ma tabax nga dëkk ñooñ aw ma seen fay barke Serigne Bamba maa leen di bégee bu baax a baax di nuyu waa CPRA Fran Ndiago borom CPRA ak seexu yàlla yi Ousseynou ak yu Mandala yi maa leen bu baax a baax a baax di bëggee zone bi yëpp comme ma limul rek damaa juum Vémas borom centenaire saag yeeg daal yi ñànku borom pièces détachées yi ñànku kase xam nga maa ngi koy bëggee bu baax a baax di wax na gars yi génn jàppale jeunes yi nekk fii nii bëgg dara nga nekk si gox jeunes yi xam nga ñëw champion Ouzo ngi nii booy bu am avenir Ouzo waaw barke Serigne Bamba man mooy sama mbër daal mooy loolu waaw musul bëre nag. mais jàmbaar la barke yàlla moom magam mama waaye nan ndaanaan yi génn ñu jàppale ndaanaan yi barke sëriñ Bamba defet bi yàqul dara si làmb ñun làmb dañ siy lekk waaw barke si yàlla SVT Media mooy suñ tele waaw yéen am leen jàmm rek waaw bëggee naa la bari baax a baax Mame Mor tam di la ziaraat di wax gars yi nag rendez-vous la le deux fan la fële sa Iba Mar at kan jax mis bi 10 millions la nag gars yi maa ngi ñëw nag pour pour pour def si li ma si def waaw man de xam naa damay mujjee wàcc sax damay mujjee teg micro wàcc di wax na gaa yi nañ ma fa xaar de le 2 mise bi 10 millions la Jax mi ngi ñëpp nag di nag yàlla mi borom jàmm sax comme jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla defal jàmm ndax garab bu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doyut kon dig dee beneen émission beneen champion fii si SBT Média kese rek dong la de Alaaji Maas borom ñaari galon yi